ñu ñëwee fii ci organisation bu toll nii ñu ne ñu ko organiser ñu ne jeunesse Tidiane Malick Guèye ministre de la jeunesse bu ñu ko ci joxee kàddu mënu ko delloo loolu moo tax ñuy sànni kàddu rek kàddu ngërëm ak wane suñu kontante teew fii tey ndax euh, président de la république dafa jël jeunesse def ko ci kanamu priorité bi moo tax fu ñu gis ay ndaw di yëngu ci lu baax ci lu rafet ci lu jub dañuy sawar teg fa suñu tànk rawatina bu mu nekkee ndaw yoo xamante ni dañu identifier seen bopp ci kenn kenn kooku nekk modèle muy suñu maam Seydi Hadj Malick modèle la ci lépp bu dee citoyenneté suñu maam Seydi Hadj Malick modèle la ci bu dee patriotisme modèle la ci ndax ba muy yónni doomam muy dem ci guerre boobu li yëpp xewul tey boobu waxuñu waxuñu citoyenneté waxuñu waxu patriotisme defe suñu maam Seydi Ahmed di taawam ci guerre la des te loolu yëpp mënoon na ko ci bañ a fekk waaye bu ñuy wax tamit exemple ci bëgg réew suñu maam Seydi Hadj Malick ci la bokk ak citoyenneté ndax fu ko gouverneur woowaan dem na wuy ji fu ko tubaab bi woowaan dem na wuy ji te ndam la ci jëlee kon kooku modèle la ci citoyen modèle la ci citoyen ndax dafa gëmoon ñàkk jariñ gëmal ko ay taalibeem xiir leen ci motax ndaw ñi buñu gisé tay ñu def fi seen bilan bi ñu fi def dañ ci contane xam ni wëru nañ ci seen référence muy mam Seydi Hadj malik kon dañuy wax rek li ñuy faral di wax jazakumullahu khairan yal nañu yàlla fayal Maodo di ko sant tam bim ñu wone leen ki nga xamante ni moom la wax le sceau des muy xaatimul awliyaay dañ koy wax imaamul arifina bazaku maxtu wala li maxtu kon yal na yàlla fay moom ah ñi ngi tàllal en tant que ministre de la jeunesse ñi ngi tàllal loxo jeunesse Tidiane Malikite ndax seen rol ci réew mi rëy na am na solo te mënuñu defar réew mi sans organisation bu jeune bu mel nii kon ñun en tant que ministre de la jeunesse li ñu président Macky Sall sant mooy jël référence ci ndaw yi nga xamante ni ay modèle nañ wan leen ñi nga xamante ni nekkaguñ ci yoon bi te war ci nekk sëriñ bi ñu lay ñaan ah xëy na yaa ngi bay sa waar bu baax a baax a baax di ko def di ko sa waajur ba doon defee di jàngal ndaw di leen xiir ci lu baax di leen xiir ci lu rafet waaye président de la république daf ñu sant ñu ñaan la nga ñaan ndax euh, ñaan yi am na solo te yaakaar nañ leen ci bu baax a baax suñu maam Seydi Hadji Malick ñaanam bi ñuy wax Fanaajina ëpp na sax ci bato sàkkantuma ci réew kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant du ma guddal bi di sant jeunes yi di leen gën a ñaax ci citoyenneté ndax toll nañ foo xam ne àdduna bi déviance yi bari na euh, jàdd yi bari na Euh, fléau yi nga xamanteni day yàq ndaw ñi bari na ñu leen di xiir ci jub ak jubal ak fonk suñu réew ak liggéey ngir réew mi avancé parce que bu ñuy wax plan Sénégal émergent jeunes yi lañ ci gën a yaakaar ak jigéen ñi kon ñu ngi leen di gërëm bu baax si di leen sant di gën a tàllalaat suñu loxo